bismillahi irrahmaani irrahim baabu sifati lxajji wa duxuli makkata chapter uh, the nature of hajj and entering Mecca and entering Mecca قال عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xajja fa xarajna maahu xata ida atayna dal xulayfati fa waladat asmaau bintu umays fa qaala irtasili wastafiri bithawbin wa ahrimi wa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi lmasjidi ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا الباب استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة summa ataa maqaama ibrahima fa salla summa rajaca ila rukni fastanamahu summa xaraja min albaabi ila alsafa falamma danaa min alsafa qaraa inna alsafa walmarwata min shacaa'iri llah abda'u bima bada'a allahu bih faraqiya alsafa xataa ra'a albayta fastaqbala alqiblata fa waxada allaha وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل من الصفا إلى المروة xataa idaa sabbat qadamaahu fi batni alwaadi saa xataa idaa sacida mashaa ila almarwati fa facala ala almarwati kama facala ala alsafa fa dakara alxadis rawaahu muslim Seydina Jaabir ibnu Seydina Abdillah radiyallahu tabaraka wa taala anhuma narrated The Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam performed the Hajj and we went out with him. When we reached Dhul Hulayfa, Asma bint Umais gave birth to uh, Asma bint Umais gave birth. Asma bint Umais was the wife of Sayyidina Abu Bakr. She gave birth to her son Muhammad ibn Abu Bakr. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, Take a bath, wrap your private parts with a cloth, and enter into the state of Ihram. The Holy Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam prayed in the masjid and then mounted Al-Qaswa, i.e. his she-camel. And when it stood when it stood when it stood erect erect with him on its back at Al-Baida, i.e. the valley where the Holy Prophet ﷺ did his ihram or made his ihram. Uh, when, on its back at Al-Baida, he وسلم, raised his voice declaring Allah's oneness and saying, Labbaik Allahumma labbaik, I am at your service. O Allah, at your service. La sharika laka labbaik. You have no partner at your service. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Praise and grace are yours. In the dominion, you have no partner. When we came to the house, i.e. Al-Kaaba, he sallallahu alayhi wasallam touched and kissed the corner, i.e. Al-Hajar al-Aswad, the black stone. and ran three times around the house and walked four times around the house. Then he وسلم, came to the station of Ibrahim and prayed. He then returned to the corner, i.e. Al-Hajjul Aswad, and touched it and kissed it. After which he وسلم, went out by the gate to As-Safa. On coming near to which he recited إن الصفا والمروة من شعائر الله Verily As-Safa and Al-Marwa are among the signs appointed by Allah. Adding, أبدأ بما بدأ أبدأ بما بدأ الله به I begin with what Allah began with, i.e. As-Safa. So he mounted As-Safa till he saw the house, i.e. Al-Kaaba. Then he faced the Qibla, declared, Allah's oneness, Allah's oneness, proclaimed his greatness and said, Nothing is worthy of worship except Allah alone, who has no partner. To him belongs the dominion, to him praise is due, and he has power over, ev over, over everything. Nothing is worthy of worship except Allah alone, who alone has fulfilled his promise, helped his slave, uh, helped his slave and defeated the Confederates. And defeated the, the Confederates. The Confederates. He, sallallahu alaihi wasallam, then made dua, supplication, in the course of that, saying such words three times. He next descended from As-Safa to Al-Marwa, and when he came down into the belly of the valley, he ran, he ran and when he ascended from it, he walked till he reached Al Marwa. There he did as he had done at As Safa. The narrator, the narrator reported the rest of the hadith. Muslim. هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. The hadith is too long to be explained. <laughs>